yow agresseur nga dama bëggoon xam lan moo lay euh, pousse pour nga nekk agresseur. pourtant j'ai deux deux enfants am am enfant ñu ngi Joal. damay toog am ay problème ni man am naa sama métier mécanicien la waaw ah, damay toog ak ah, affaire yi xaw a dëgër. waaw ah, sub sub loolu moom obligé may def yoo xamante ne moom. xam nga li def du yoon. non du yoon waaw mais mais euh, soo leen agressé naka ngeen koy préparé naka ngeen koy préparé. non ak agression non ah comme mun nga nekk mun ngeen nekk deux personnes. ngeen yor benn sœur ça dépend sœur bu mu nekk rek. scooter waaw. Ah. après. ngeen ngeen ànd dem. mais ah, amul sax programmation. waaw ngeen gis benn affaire naka ngeen ko soo leen gisee benn femme wala kenn ku yor saak wala lan ngeen di wax. waaw ah, suñ suñ gisee kenn ku yor saak wala benn affaire. léegi kenn day wàcc dem jël ko ñëw yeegaat. kenn dawal kenn ki wàcc. waaw deux deux la ñu doon. waaw léegi comme par kaa bi bii eh, bii ñu la jàppee nii nu mu demee. cas bi man man maa wàcc ci sër bi. naka ngeen ko prépare da ngeen gaare woon foofu di xaar ou bien. non non dañ doon romb nii hasardement rek gis ko. gis femme bi. waaw naka ngeen gisee femme bi. man maa ko ñun ñoo ko gis muy wàcc oto bi. Mhm. waaw yor benn saak ma wàcc dem. ci moom jël saag bi saag bi ñëwul ma bàyyi saag bi dem di yëg benn oto mbëkk ma. saag saag doo ko jarul pes jarul dóor man saag bi laa xam nga ñëwoo ñëwoo yambare nii rek ni jàpp saag bi. moom moom moom gisu gisuma. waaw du ma gisuma. da nga ñëw ak doole vif. non non man laa jaar ne. waaw gis gisuma sax pesu ma ko léegi nga jàpp saag mu jàpp waaw mu daanu si laa bàyyi saag bi dem di yéeg oto ma benn oto si. ma ma daanu léegi ñi di ñëw waa koñ bi. waa koñ bi ñëw. Ah. di la dóor. waaw. Ah. ay mool lañ la doon dóor wala ay yàq. ça ça dépend rek xam ku ne ku ne da nga yor loo. Hmm. ça ça dépend rek. waaw mais yéen souvent doo leen doo leen agressé baadoo la naka ngeen di xamee ni ndaw si saag bii mu yor am na xaalis. am comportement walla dégagement wala personnalité ngeen di xool. naka ngeen xamee ni saag bi am na xaalis. non non xam nga am am am tay saagu jàmbur mënoo ko xool dina lii am na xaalis. waaw da ngay def hasardement rek. xam nga tey jii mbindaan moo wàcc di dem di ñibbi xam ngeen ni doo leen këf saagam. waaw ah, hasardement ngay defee rek xanaa gis tamit comme li nga wax nii comportement wala benn affaire nii mais parce que tamit nit moom. mënu yor saagam nga ñëw xam la moo nekk ci biir noonu. ñaata at a ngi ngay ngay agressé. def naa ko quatre fois. quatre fois mu mos a agressé. waaw ah. mosuñu laa jàpp. non bii lañ ma mos a jàpp nii. mais yëpp danga daan rëcc. waaw. Ah. mos nga agressé nit sa gaa yi jam nit. non non non non non non. mais def chimol. non non non man. man ay stade sax. du ma dem ay stade ay chimol non non non. Mhm. Mm. mos nga ngaa agressé fekk ci ñaata ci xaalis ay ñaata ngeen di fekk ci saag yi en général. ça ça dépend mos ngeen a dal ci kaañ kaañ. kaañ ko ay cent mille cent cinquante mille affaire yooyu. mën nga fekk ci saag yi euh, souvent ak ay portable nii ah, ah. sàcc na. Ah, sàcc. comme loolu noonu vol la. pas mais tey jii sàcc quoi sàcc dem sàcc ci oto jàmbur wala. non non non de Dieu mosuma def loolu. mosoo sàcc. non non yooyu yëpp mosuma ko def de Dieu. Hmm. ay asaad si mool yii yëpp mosuma ko def. mais nangu nga ne mais agresse parce que nee nga agressé nga plus de quatre fois. waaw mais kon nangu nga di agresseur la. waaw man te man am naa sama métier comme lu mu la expliqué. waaw xam ma xama xama xama tey damay toog souvent. ñu ñu woo ma ne ma xaalis amul affaire yooyu at lay xaw xaw a xaw a dëgër waaw il faut nga damay damay def benn affaire pour am xaalis. yow da foo dëkk koo dëkkal da nga loué yow kese wala. non man loo man kër jaamur laa nekk nii. Hmm. waa kër gi xam nañ ni film nii jàpp nañ waa kër gi xam nañ ko waaw. Ah, mais sa sa sa sa gaa waa yi nga àndaloon ci moto bi moom anam. koo xam la lañ sekk damay damay soxla pièce yenn saa ma dem atelier am na ko am nga pièce temps. xam nga loolu loolu bëri na si cadre mécanicien yi. waaw d' lu tax ngeen ànd nag ko ba pare ni tey nañ agressé du loo leen waxtaanee. non non non loolu. lan moo taxoon ngeen ànd. parce que xamoo ko xamoo fu mu dëkk. waaw mosoo waay. waa léegi ma loolu laa expliqué xam nga tey loolu suñu amee. dañuy dañuy séddoo xaalis ku ne dem. waaw loolu laa mais ban moment ngeen décidé daal ni femme bi da ñëw nañ ko nañ ko nañ ko dóor mu daanu. non dañ koy romb gis ko muy gaare oto. après lan ngeen wax ci moto bi avant lan ngeen wax ci moto bi avant ngay wàcc. non man maa man maa taxawal man. waaye après. waaw ma tafu noonu ci miir bi. mais am na loo leen waxtaan ci kaw moto bi avant ngeen di de am na foo leen jëlee décision ni femme bee nañ ko dóor mu daanu. non pourtant loolu du décision. waaw lan lan noonu nu mu demee. waaw comme lu ma la expliqué loolu du nekkul loo xamante ne décision la man si boppam man principalement man maa xam ne taxawal. waaw mu taxaw man ma tafu si miir bi. dem ko taxawal laaj la looy defee. non moom xam na. xam na waaw agresseur la moom tam. no moom du agresseur non euh, waaw comme comme comme ni nga ko comme man agresseur la waaw moom agresseur laa man. parce que moo doon dawal yow nga dem dóor dóor femme bi moo kii. Ah. waaw léegi bi nga ne ko taxawal. mu ne mm, wala ah. lan la. non dafa taxaw. waaw après. waaw ah, man moo wàcc. waaw xam na ni dangay dem jël femme. Mhm. xam na waaw. waaw léegi. waaw après si laa dem jël saag bi femme bi yuuxu. mu xëcc mu xëcc ma bàyyi dem di yeeg oto bi mbëkkam mhm. benn oto waaw. mais femme bi xam nga ni loxo yàgg yëpp a daggatu. non. blessé nga ko xam nga loolu. non non man. non non. ah non loolu fii nii yaa ngi koy rëccu mais soo jógee ci lii est-ce que di nga. non non loolu loolu moo ko defati. noonu di seetlu loolu. est-ce que xam nga ni mën nga fee tëdd mën nga cee tëdd cinq ans. si ah. si. souvent soo leen agressé am xaalis xaalis bi noo leen koy def. en euh, général ñu bëri du ñu du ñu xamante dañuy ànd ni du ñu xamante dañuy ànd am xaalis seetloo ko après ku ne dem.